bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa xabibina wa shafiicina wa mawlaana muhammad ibni abdillah wa ala aalihi wa sahbihi wa sallim ixwatil iimaan maalil ulamaa ayyuha saada samaaxata shuyuux asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu tedd yi nuy déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di leen balwaq te di leen balaq di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yal na ñu dolli jéggal ñaan sunu boroom yal na dolli faj aajo yi te tiis yi saafara jàngoro yi te jéggale bàkkaar yi yal na nu yàlla gën a xéer ci boppam aar ñu làq ñu fa yàq yëggul yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule lu nu am yàlla na nu am yàlla lu nu ñàkkit yàlla yal na yàlla gën a sàmmal boppam yal yàlla gën a aaral boppam bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ziar ñëpp di baal ñëpp di seet mbokk yi ci la yi ñëpp yal na sunu borom fëgg seen bopp saafara leen delloo leen seen sago ñi yàlla dogal ñu jiitu ji yal sunu borom subhanahu wa yërëm leen te jéggal leen seen bàkkaar ñu ngi jaar seen mbokk di leen massaw di ñaan yal na app sore yantoyo yal nañu ko yéex a fayante bi jaay seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallim baarakallaahu ginnaaw nuyoo yeeg mbokk yi ajuma ji nu génn bi ñuy tàqalikoog yéen noo ngi woon yéen ci sayidul wujud wa alami shuhud sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa xam ngeen ne toppoon ngeen ñu ci la jiitu na mu doon tànne député notable yi chef coutumier yi ci lislaam tànnoon nañu xaadi yi maanaam àttekat yi juge yi gis ngeen nañu toll woon ñi doon ñi mu doon yónni ci buur yi ak ñi nga xamante ne ñoo daan bind lettre yi ak ñi sañ a ubbi lettre yi di ko liir di ko jàng buur yi nga xamante ne ñoo ko tontu lañu ko tontu ñi xotti leetaram ñi teral ay leetaram ñi ko ca may ay jaam jaam yo ñan la nu mu mujjeek ñoom giléem yi ña ko ca may ay fas ñi ko ca may ay bax la ñu ngi ko ci may ay mbaam déggoon ngeen na mu toll délégué des marchés yi ñi nga xamante ne ñoo doon saytu sécurité dëkk bi ñëpp sunu maam seen xaji malik radiallahu taala anhu tënkaloon nanu ko bi nga xamante ne ñëw nañu nag ci fas yi déglu ngeen li mu amoon ci fas naaru góor yéeg jàkkeer yeeg ngile muy xacc ak mbongu yooyu yëpp déggoon ngeen fas yu góor yeeg yu jigéen ñi mu ci am déggoon ngeen ñi li ma amoon ci ay giléem ñaata giléem xamoon ngeen ñaata ñoo ci yu jigéen yéen ci doon ratt ak yéen ci doon ratt ka sàmm giléem yi naka doon jëfandikoo soow mi walla meew mi lépp déggoon ngeen ko ci waxtaan yii nu génn wax na leen ñaata mbaam la am ñaata bax la la am fu mu ko jële ku ko ko jox lu mu siq ak ñi ko ko jox sallallahu alayhi wa sallam tey jii nag ñu fa yéene teggi sunu baaraam ca fanu yamoon ajuma jee nu génn walla waaw ñaata bëy la amoon foofu la ñu teggiwoon tegoon suñu baaraam fas yéene ñëwaat nag incha allah ci ñaata bëy la amoon bi xaysatin duiyat aw xaysatin yamanun shaatun lahu qamarun uddat falatahi di nuyu maam Alpha si bu baax a baax maam si Ahmada si di dokkeel sëñ ma Demba saar di ko ñaanal jàmm ak mboolem njaboot mu la Xaaj Maalik ñëpp ñu leen di nuy te leen ziar sëñ Xaaj Maalik nee bi xawsatin téere bii maanaam bi ñuy lim gàtt yi di lim bëy yeeg xar yeeg ñi mu am dafa am benn téere bu ñu wax ni xulatul ab saar am na ñu waxee noonu góor gi Abdou Karim Guèye ñii ni Gaye moo doon laaj Mawlana si Hadj Malick ndax bi ñu waxee bu egsi ci gàtt yi si Hadj Malick def kon nag tomb bi dafa naaw gis nga ne teggi ni Seydi Hadj Malick tegginam ak yaram ak ormaam ci boroom xam-xam doonte mën na jàpp ni kii dafa juum waaye waxul sax ni dafa juum dafa ne tomb bi rek moo naaw tomb bi moo effacé wu ñu ni ko ah, si kon bu fi tomb bi nekkoon nu muy doon mu ni gàtt yii wenn tur la dafa am ñu ni xawsatun ñii ni xaysatun mu ni benn tur wi la waxoon naa leen ni ci la si da xaj maay sukkandiku radiallahu taala anhu daal di bind nag téere bii ñu wax xilaasu zahab fii siirati xayril arab ñu ni vingt cinq jours wala vingt quatre jours ci la ko liggéey am ñu ni vingt huit jours ci la ko liggéey nga xam ni gàgganti boroom xam-xam mooy sababoon mu bind ci téere bi te tudd ci aw turam ŋàññ ko xeebu ko doyadalu ko gis nga kon mag ñi bokk na ci ñun li war a roy ci ñoom mooy seeni jikko waaye mel ni man rek di nettali seeni wax di ko mottali ko te jéemu ma roy ci seen jikko dara bu boobaa nag du saf nit ñi ñii ñam tuuti baatin te ñam yàlla dootuñu la déglu kon mag ñi nii lañu yaroo woon nii lañu amee woon teggin nii lañu amee woon xorma ginnaaw man binduma téere sama morom bindum téere téere yi ñu fekk rek la ñuy nettali di ko waxtaan te yiñ ci fekk sax yiñ ci dégg yiñ ci déggul mopp ëpp yiñ ci dégg ndegam am na buñ ci dégg kon nag yaakaaruma ni nit war na ci fëgg dënn bay di raddu moroomam di ko ci rëbb mbaa di ko ci takfiir di ko yóbbu ca kéefar ya mbaa mbaa mu jur ak noonoo loolu daal waru ko woon man euh, waru foon àgg moo tax sunu maam ju baax ji ku ko gënit mu gën la jikko ndax bokk na ci li mu doon wax ni man qalla ilmuhu kasura inkaaruhu borom xam-xam bu gàtt day bari muy weddi koo dégg diingat ka ndax nee na ñetti téeméeri ngir ak juróom-benn fukk ak ñett ñoo wàcc te ñun ñeent rek lañ ci am kon nag diingat bi mën nañ ci def ndànk waaw bu nit àttee ab àtte bu mu tax nga yóbbu ko safara bu mu tax nga xuut te weddi ga nit mën naa wax la mu wax xëy na am na fa mu ko teg foo eggul mbaa fu sa bët aggul ndax xam-xam tuuti lañ ci xam dangay xam lii sa moroom xam lii bu defee nga ormal ko nag te yow wax la nga xam bu defee kuy tànn tànn ci benn ba nga gën a am ba nga gën a wóolu bu defee ormalante bi gën a dox ci pénc mi jàmm ji gën a am julit yi gën a juboo ñëpp nekk jàmm waaye ñii ñuy tuddee borom xam-xam bu ñu demee bay xee xee xeebante mbaa ñuy xuloo ci sin bi ak di tontonteeg ku ne di jaay ni maa wér ku ne di wut ay ay ku ne di wut ay fans di leen beraka di leen wan yaa yéen a gën ndax maa gën ko boobaa nag dootu ko jar dootu ko jar li gën a neex ci xam-xam daal wax la nga xam te bu jeexee nga noppi loolu rek am solo moo tax maam Alaaji Maalik nee na gàtt yi duñu woon ñaar benn la bi xawsatin gàtt bu ñu wax xam sa duciyat dinañ ko koy wooye aw xaysatin wala xaysatin wala xays nee na ñoom ñépp benn tur la yamanun gàtt la shaatun gàtt la shaatun lahoo am na beneen gàtt bu ñu wax xamarun gàtt la neena na uddat konteel la tahimi te bu tuumaal bul weddi lii ma la wax moom la mu ni atlaalun ci gàtt yi la bokk atraafun gàtt la suqyaa walla saqyaa gàtt la zamzamun gàtt la barakun wala barakatun barakantam gàtt la fala yem ma mu ni déedéet wa ajizatun gàtt la warsatun gàtt la faqra bi mu bi mun ajimi nee tomb yi warshatun ne bul jàng siin bu tooy bi nee na jàng siin bu wow bi nee nga jàngal warshatun xam nga siin yi ci prononciation lettres yi am na ñu bari xam ni foofu dañu amee problème parce que am na ñu xameewul soo ak fa ak za ak za ak sa ak wa ak za ak sha ak so xeet yi prononciation yooyu mbër yi bari foofu la ñuy daanoo am na ñu bari ñoo xamante nii bu ñu làkkee arab doo xam lu ñu wax bu ñu jàngee alxuraan tam doo xam lu ñu wax ndax Chine su tooy xépp nga jàngee seen bu wow loolu moo tax ñu ci bari bu ñu boo demee Égypte dañ lay muraqab lañ lay jëkk a def dañ lay commencé waat alphabétisation boo demoon tey ci ja école yu mag yi alphabétisation lañu jëkk tàmbaliwaat ak yow ndeysaan Oustaz Alioune Sall mu baax mi yàlla bàyyi ko ci suñu kanam dañuy nettali suñu aadi que yàlla dajaleeg Mawlana Cheikh Hadj Malick radiyallahu taala anhu dañu waxtaanee ba pare ñee si Hadj Malick ni ko ndax mokkal nga Fatiha <laughs> te xoolal maam aadi dama mel ca xam-xam ca njub ak maandu ak yar nee mu téye kursam di tar rek saa woo demee egg fa nag mun ko tàmbali waatal su demee mën ko tàmbali waaye pour wax la rek ni la. xam-xam daal wa maa utiitum min al-ilmi illaa qalilun laa leen jox ci xam-xam da lu tuut loolu tuuti ngeen ci mokkal lu mokk lu tuut loolu ngeen ci mokkal tuuti ngeen ciy jëfe lu jëf ndaw jooj tam tuuti ngeen ci sellal lu sell looloo ngeen jàpp ne sell na xam leen yàlla na ko nangoom ndéet te ñi koy sellal ñëpp ñu ngi toog ci volcan allahu akbar mu kon fu ñu mucce moo ma jaaxal kon kon déglul déglul gàtt ya mu ni xawsatun yamanun shaatun qamarun atlaalun atraafun saqyaa zamzamun barakun wala barakatun ajizatun warsatun wax naa la fukk ak benn yoo xamante ni yii ay tur la ñuy ca gàttam ya sallallahu alayhi wa sallam moo tax ju ni bëy wu dee parce que bëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo demee ci kanamu bëyit bii maa nga lay wax ni waqat ara waqat xawa waqat xawa miatan shaatan wa laysa laha zeydun ala al adadi al mahduudi min ganamin mu ngoog mu ne téeméeri gàtt la doon am yonent bi sallallahu alayhi téeméeri gàtt daaw ko paase mu ni waxat xawaa làqoon na mi atan téeméer shaatan ciy gàtt walay salaa déet mukk zeydun ak ndollent alal adadi ca lim ba saa wu musaan am téeméer rek moom foofu la daan yem euh, sàmmam boobu daan ko sàmmal euh, seet na wenn bëy walla xar mu faatu bi mu dee medd ñu bàyyi ko noonu mu leen lu tax jëluñu der ba ñun ko dafa medd moo tax jëluñu der ba mu ne ngeen sëbëj ko su ngeen ko sëbëjee rek kon ndekete même gàtt bu dee medd suñ ko feesee jël der ba buñ ko sëbëjee mu làpp gis nga moom nee na dira uha tuhruhu moo wax nee soo ko sëbëjee rek mu làpp moo tax mu ni ويسبه شاترائها إذا ولدت مكانها بهمة من دون ما وزمي imaam Ahmed Sow maa ngi leen nuyu baax a baax nee na wa yasbahu shaat raayiha nee na raayiha sàmmam ba sallallahu alayhi wa sallam nee na daawoon na ren bépp gàtt isa wulidat bu bu bu bu wasinee gàtt bu wasin rek tegu ca téeméer ba mu nar a nekk fukk ak benn nee na bu bu mburtu bu mburtu juddoo rek mu jël benn bëy rendi wala menn xar rendi daaw ñoon paas téeméer kon nag sang bi alayhi salaam noonu ay gàttam tollu woon téeméer ya mu ngoog waaw maam laaji Malick comme yaan yaa qaysal bahri ndax moom amoon na nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax amoon na ay nag ah mu ni daa déglu ma wax la li ma ci xam mu ni wama ata wama ata niqtinaul mustafa baqaran lakin mudaxin biha an alihi lxarami laa ilaha illa allah mu ni wa ma ataana dikk ñu dikkewuñu benn yoon ci xeetu xam-xam fu ñu mus a xame wala fu ñu mus a jànge iqtinaaul Moustapha koom-koom Moustapha ci wàllu jur baqaran aw nag jàng jànguñu fenn ni moom mus na yar ay nag jànguñu fenn ni mus na am nag jànguñu ko fenn de maam alaaji may wax de mu ni laakin waaye nag mu daxin aji tëbaskee la bihaa ca nag ya an alihi xarami ca njabootam gu jigéen ga mu ni kon mus naa tabaskee nag tabaski waaleel maanaam mus na rendi nag ci tabaski pour njaboot gu jigéen ga waaw kañ kon kon loo cay déggee kon ndekete kon am na fu jamonoy toll nga mën a ngeen mën a jënd nag waaw mën koo tabaskee ndax sang bi mus na koo def alayhi salaatu wasalaam kooku beneen àtte la incha allah ngoog waa maam ganaar nag mu ni waa abayaada diiki haazal badru murshiduna wa innahu kaana kulla layli lam yarimi وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار في القدم yal na nu ko yàlla fayal mu ni waa abyadu diiki amoon nag séq gu weex séq gu weex tàll nee na xaasa mus na koo am kan maam mu ni albadru weer wa mu ñu weer wan ci wi ci kaw wala mu ni déedéet mursiduna kay ko jug arma kay kay ko orienté sunu ka nga xam ne moo ñuy orienté kooku lu ñu tuddee weer wi mooy Moustapha sallallahu alayhi weeru fukki fan ñeent nu muy mel leer naññ ne dàng moo tax ñu dàkkante la ko weer wa nga xam ne mooy aji jubbant ñun wa indahu séq ga fu mu daan nekk mu ni ca moom la daan nekk kaana kulla leen guddi gu nekk lam yari maa daawul tàqali ko yonent bi sallallahu alayhi ci wetam la daan fanaan ba fajar mu faj mu sab diirub dund yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam googu musu tàqalikoo ak ah, sang bi alayhi salaatu wasalaam kon nag gàtt yaa ngoog li ma amoon ci ginaar wax naa la ko li ma amoon ci nag te mus koo def wax nañ la ko li ma amoon ci ay gàtt diggante bëy ak xar yu ne mel wax nañ la lim bi mu ci amoon nu mu toll wax nañ la itam li mu amoon sallallahu alayhi ci ay giléem li mu amoon ci fas li mu amoon ci ay mbaam li mu amoon ci ay berkelle bu ci nekk fu mu ko jégee jëlee ko ko ko jox wax nañ leen ko wax na li mu amoon ci ay naari góor bu ci nekk nu mu tudd ak ku ko jox mbaam ya wax naa la ko yépp wax nañ leen ko fu mu ko jëlee ku ko jox buur yi nga xamante ne ñëpp la jamonoon teeloon daana yu bindanteeg ñoom ña ca duub ak ña tuubul ñépp Seydi Haaji Malik radiyallahu taala tënkal nañu ko ci téereem bi ñu wax xilaasu zahab fii siirati xayril arab léegi nag kon ñu ñëw ak yéen nag ba tey wéeg yéen ci jaasiya la ma amoon ci jaasi waaw alfasu rabi wa shirun buntub euh, vingt fi zikri maalihi sallallahu alayhi waaw ci tudd la mu amoon ci ay jaasi mu ngoog maam alhaji maalik nee na inna suyuufa fa maasuurun kasal qalaci wa mixzamun adbun albattaaru kulla kami xatfun rasuubun qadibun zulxifaari wazid samsaamatan waftaxanna saadayhi tastaqimi inna suyuufa fa maasurun kazal qalaa'i ومغزاب غداب البتار كل كمي maam Alaaji Maalik nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na jaasi ju ñuy tudd maasuur jaasi ji mi ngi tudd fa maasuurun jaasi jooju mi ngi ko doon ci baayam Abdallahi abdullahi mi nga xamante ne moo ko jur ibnu abdul muttalib ibnu abdi manaaf mu génnee àdduna bokkoon na ci li mu donnoon jaasi ji ñu tudde almaasuur waaw ak ban mu ni ka zaa ka zaani ki noonu tam alqalaay donnoon na yeneen jaasi ji ñuy wax xala foofu mu ngi bàyyi ci dëkk bu ndaw bu nekk ci Medina bu ñu tudd burku burkul waaw barkul yi ma ma laaj maa yii muy tudd sax dafa naqari tudd sax waxuma sax di ko jéem a way di ko wax rek <laughs> yàlla waaye si xaj maa yi radiyallahu taala yàlla na ko yàlla fayal te te te te góor yi nee na amoon na jaas joxe nen la ko jële woon burkul xalaa yi wa miq zamun amoon na jaas yu ñu tudd mirzam mirzam bii moo geneen jaasi bu ñu naan rëssu ñoom ñaar yo imaam Alaaji Maalik nee na yonent bi sallallahu amoon na jaas yu ñuy wax rëssu ak genn jaas yu ñuy wax mirzamun mu ngoog mu ngoog moo tax mu ni battaaru kulla kamin jaasi jooju ñuy wax xat bun nee na albattaaru mooy dogaa bu kulla kaminti lépp lu dëgër waaw battaaru moom mooy dogaa kon gu tip ne foo ko teg mu nooy ko ŋaañim ŋaañ foo teg mu nooy rek foo tóor rek am bunt sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu ni xatfun jaasi la rasuubun jaasi la xadibun jaasi la zul jaasi la nena na wasit na nga dolli ci jaasi ya samsaamatan jaasi yu ñuy wax samsaamatan waaw mun nag waftahanna nee na nee na nga na nga na fatxa saadayhi ñaari saat yi muy sam soomatan ñaari saada mu ne waftahanna na nga fatxa saadayhi maa ngi doon wax saad saadayhi ñaari saad yooyu muy sam saamatan nee boo ko defee rek tastaqim mi nga jub ni xocc xam ne yaa nga ca yoon wa radiyallahu taala anhu yeneen ko yàlla fayal moo tax mu ni xatfun mooy mooy mooy dee waaw joo xamante ne nii moom bu la dalee rek moom fa nga taxaw doo fa jóg moo tax ñu tuddee ko fun rasuubun moom it mooy sax bu la dayee tam doo buusa fi nga taxaw zul yi jaasi la joxoon moom te mi ngi ko jële woon badar badar la ko amee woon jaasi jooju ko wax aas ibnu waayil moo ko moomoon moo tax bi ñu leen reyee te yéefare daw bi ñuy séddale bitin yi jaasi jii ci cëru yonent bi sallallahu taala wa sallam ci leen nekkoon sam saamata bi ma doon wax nii moom itam euh, amru bnu aas moo ko mayoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax jaas jooju sax yonent bi sallallahu alayhi da ko mujj jox xaalid ibnul walid waaw ko mujje moo ko ko jox ndax xaalid moom tamit jàmbaar la woon yéex na tuub ci lislaam daa waa euh, gaa waaye nag bi mu ci tuubee tam def na ci jolal ne kenn du ko fàtte moo tax sang bi yëkkati jaas jooju joxoon ko ko ngoog mu ni darsul ximaari jaasi la wa zunnuuni boroom nuun nga nga xamante ni jaasi ji dafa dëngoon ba mel ni kuy bind nuun nga xamante ni catal jaasi ji ak ponk bi noonu la jaas ji téene woon nga xam ne foo ko dog rek am bunt ñu tudde ko zunnuuni boroom nuun ya ndax ni dafa daan dafa dëngoon ba mel na ab nuun kuy bind nuun mu ne ko saaka ni ki noonu ka suuxun jaasi la ka sabuuri jaasi la nee bi was nit ñoom ñaar ñoo bokk wasnu ka suuxun ka ka eh, ka suuxun ka sabuuru nee ñoo bokk wasnu bi was nit nee na ñoom ñaari jaasi yii ki ka moomoon mooy almurtada ki yàlla gërëm maam kooku mooy kan mu ñu alkaramu borom teraanga ji tedd fii tedd fële ku ko tedd gëm ku ko jàpp gëm ku ko mooy gën ko ko woon a gën sallallahu alayhi wa sallam gis nga bi sallallahu eh, eh, bi sallallahu alayhi wa bi sallallahu alayhi wa gis nga di yër di wax ak di yëg di wax du benn ñun ñii di yëg di yër di wax bind yii sax bu ñu ko tëralul tër wala nga jàng ko jàngaat ko jàng ko jàngaat ko sax doo ko mën wax waxuma naa nag tëdd di ko di ko taalif <laughs> kon mag ñi mag ñi du ñu morom di du ñu morom de ah waaw ku xeeb mburu nag da ngaa tëddul fa mburu tëdd eh, ku tëdd fa mburu tëdd xam ne mburu jàmbaar la de wallaahi yal ko yàlla fayal radiyallahu taala anhu alaaji maali mu ni ba tey ñu wéy ca ca ca ca fas ya waaye ilaaqatun eh, ilaaqatun xilqatun min fiddatin wa qabiatun wa qaayimatun zulqifaari simi ok gisal way li nga waroon jëkk a tàmbalee muy muqaddim simi mooy màndargaaleel gis nga fa la mu nga ca cat la ca jeexal li ta wax ba seet teet kenn xamul lu ñu doon ngoog mu ni bokk na ca jaasiya mooy ilaaqatun jaasi la goo xamante ni euh, moom itam ponk ba dafa am cet nam dafa gudd am na jeneen jaas joo xamante ne xelqatu la tudd joo xamante ni jaaro moo ca nekk maam alay ma jaaro mel nan min fiddati min jaaru bam xaalis jaas la joo xamante nii ci ponk bi li ñu ko defaree jaaro xaalis la nee na xabiyaatun waaw jaasi la moom itam wax ne ponk bi fi ngay téye ci digg jaas jaasi ci ci ponk bi fii sa ci sa loxo bi ci sa poigne bi dafa am fu sa loxo mën a sës muy benn baare waaye boo xamante ni jaas ju lu sa loxo ratax ratax ratax jaas du wadd mu ngoog nee na wax qaaimatun am na tam défense moom jaas jooju mu lay mila mu lay misaal muy sam saamatun nee noonu la jaas ja mel jaas ji dafa am ponk ci suufu ponk bi nga xamante ni sa loxo du rocciku am itam ci sa diggante baaramu sànnikaay bi ak baaramu gàtt bu mag bi ni ngay ngëbe jaas ji am na protège boo xamante ni mooy protéger jaas ji ba bu bu bu daggee dara bala muy egsi sa loxo protège boobu mooy mooy baare jaas ji mu ngoog kon nag lim na limal naa leen jaas yi nga xamante ne moom la am jaas ju nekk noo mel jaas ju nekk ak noo tudd noonu la mu ni dese na ko fa fiddatun xirniqun batraaw saadiyatun zaatul fuduli hawaashin wal wisaaxu nu mi mu ngoog seet tët tët tët na am na jaas yu ñu tuddee fiddatun jaas jooju mamalaaji ma nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ko jële woon ci banu Qaynuqaa banu Qaynuqaa giiru yahud la yoo xamante ne bi muy doore ñëw Medina déggoon ngeen ñu ca koor ga giir banu Nadir ak waa banu Qaynuqaa jëflante bi sang bi jëflante woon ak ñoom ba fi ñu mujjee ñoom moom jële woon na ca jaas joo xamante ne nii jaas jaa ngi tudde fidda nee na am na jeneen jaas yu ñu yu ñu tudde xirniqun jaas jooju moom tam euh, euh, xirniqun waaye euh, bopp boppu bopp boppu jaasi ja dafa dafa lunk maanaam dafa mi ngi mel ne jaasi kub kub mu ngoog <laughs> noonu la meloon te xaw a nag jaasi kub kub la mooy xir di xun mu yëpp xamoon naa moom ne ci ba di sàmm di ay xara ki bëy xeeti jaasi yëpp ay mu ni ba tey saadiyatun amoon na jaas joo xam ni mu ngi tudd batra batraw jaas joo xam ne dafa dafa nooyoon moom li ko eh, yoon daan xeexe bariwul allahuma lu may nag buy dox jàmm wala mu dem di négocier ak yahud yi wala muy négocier comme comme comme Hudaybi wala bi muy négocier ak waa Banu Nandir nga xam ne xeex taw ko jóg arab lu mu ñàkk-ñàkk-ñàkk nga naay buy dem faw comme suñu mbokki pël yi pël lu mu ñàkk-ñàkk nga naay faw mu ŋàbb paaka mbaa jaasi mbaa nangam-nangam pour euh, kii góor nag bu jombee daw day nga naayu waaw góor bu jombee daw day nga naayu ñun daaw nañ ko wax te ba nekkee gën a nekk gone waaw wëqit daw moom pëccët moom kooku deeñu gas la suul sax moo ko gën waaw fii ngay ndakaaru ngay ñu gis agresseurs yi ñu a jaasi ñëpp ni xiim waaye bu doon ca àll ba doo <laughs> doo ko dolli de allahu akbar waaw wax ndànk sax bala ñu maa dégg ndax ñamoon naa <laughs> seet tet tet kenn mësu koo gis eh, xaa ma yem foofu rek waaye ma yemale ko foofu daal jamono neexut te cat baaxul <laughs> waaw batraawu moomu dafa gàttoon jaas ju gàtt la woon ñu ngi ko defe waroon ci kojug saadiya giir saadiya ñoom ñoo ko defaroon mu ngoog wax na ni saad mu ubaada mii moo mayoon yonent bi salaa sallam jaasi jooju gi nga saad mii na ko topp amul lu mu joxul yonent bi salaa may na ko xar may na ko gàtt may na ko giléem jox na ko fas jox na ko baxla may na ko mbaam jox na ko mbubb koŋ amul lu mu ko joxul mooy saadu ibnu ubaada bi ku baax xam nga lu ko waral te baaw yi ñu jëkkoon def te bayatul ula te ña jëkk a jël lislaam yóbbu ko madinatu munawwara moom mii ci la bokkoon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam taamu ko ci nuqabaaw yi te député ak nit ñu baax ñi waaye nga amul garat bu mu takkul ci lislaam ngir njub ak baax mooy lim li muy defal yonent bi sallallahu alayhi saa woo tourné rek gis euh, jëfam ma ngoog mu ni kon batraaw jaas jooju saad yi saad ñoo ko defoon waaye saad ibnu ubaada moo ko may yonent bi salaa sallam mu ngoog mu ne zaatul fuduli fa fiddatun qirniqun batraw saadiyatun hawa shin wal unumi wax naa la fi wax naa la fiddatun wax na xirniqun wax la batraawu wax na zaatul fuduli zaatul fuduli nee na zaatul fuduli moom moom itam gàtt la woon boo xamante ne nii moom gàtt la woon boo xamante nii moom la yonent bi sallallahu alayhi wa tayle woon <laughs> ndeysaan xam nga rek li ñu naan sag moom ak sutura yàgg na ci gor yàgg na ci jullit mbubb mu rafet poos dara waaw mbubb mu rafet poos dara yàgg na ci jullit yi te ñu ngi ko doon na ci sang bi alayhi salaatu wasalaam fas wii wala jaasi jii ñuy wax zaatul fuduli Euh, sang bi tayle woon na ko ci benn yahuud bu wax abo sax abo abo saxam ci fanweeri àndaari dugub waaye yéex na koo fay lool ndax laka ko jàppoon ba muy ba muy leb di tayle bàyyiwu ko woon maanaam yéex na koo bàyyi moo tax jaas yàgg na fa lool moo tax Maam Musaa ah Moussa Ka leen topp ay waxam dafay dafay junj ay bagages yoo xamante ni yi ci bari boo ko xoolee ci téere mag yi nga gis da ngay ci ngay doon xam sarxaba mu mag mu yàlla baaxal la daan wax ni moom ni mu ni xaw na faa wel <laughs> jaasib jooju man xaw na faa wel xam nga wel eh, ay wel xam ngeen ko baxi wel wel ay eh, mala la xaw a mel ni ay jaara ki ñoom Euh, wëxiñ mais ay wel daal pexe pexe wel daal dégg moom wel xam ngeen ko yéen waa Dakar nag mën ngeen ko ñàkk bañ a xam waaye waa dëkk moom xam nañu wel wel mooy pax yu yàgg doon lu mu noor noor noor pax nit ñu nga ca biir te du sa gudd la ñuy génn mbaa daal moom daal paxi wel moo ko ay wel ay pax yi kan wel ay ay ay kan yu wel gaz mbaa gis la bu làkk anglais noonu la koy waxee ay kan yu wel gaz xam nga yooyu loolu dafa xaw a nuroog anglais waaye wolof la ay kan yu wel gas waaw <laughs> seetete donc dara daal lu mu lu mu ràbb rek tëgg ci <laughs> tëgg ci përëm mu ne zaatul fuuduli nag gàtt boo eh, kii boobu jaasi jooju nag mu ngoog yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tayle woon te ko ci jaas yi la bokk radiallahu taala anhu ci maam alaaji malik sallallahu alayhi wa sallam ci sang bi alayhi salaatu wassalaam mu ni sabu duruuci allawaatii kaana yalbasuhaa xayrul bariyati min xarbin wa multatimi mu ni sabu duruuci amoon na juróom-ñaari mbubbi koŋ yoo xam ne nii kaana yalbasuhaa daana ko sol xayrul bariyati ngën gi mbindeef fii xarbin ci xeex wa multa imi ci jamonoy songo congo yii la daan sol sallallahu alayhi wa maam foofu la yemam mu ni déedéet ñëw na ma wax la ñaata fitt la amoon fitt yi xam nga fitt ak ak xala benn fitt gi mooy doom bi xala gi mooy bant bi yi mu ca amoon maam nee na nga déglu koon ma wax la ko mu ni haaul qis haaul qisiyi katuumun wa sadaadu wa wa zar wa zawraawu rawxaawu falil mi ami <laughs> seet yombul di mamalaa ji maag nee na ma ñëw ci xale ma ñëw ci xale yi mu ni xale yi falil mi ami ki a yore njariñu àdduna ak àllaaxira sallallahu alayhi wa sallam na amoon na haaul xisa yi amoon na juróomi juróomi fet wala juróomi waaw juróomi xala juróomi xala amoon na ko ñu ne ko waaw maam xala yooyu nu mu tudd mu ne ba ca jëkk mooy katuumun la tax ñu tudde ko katuumun mooy lan mu ne dafa gaaw te amul bruit mu ngi mel ne balu fetal rek boo ko tànk yaa ngi koy dégg dalagu la waaye balu fetal moom bu la dalee dootoo doo moom moom ànd teel a këpp ji benn lay doon nee na noonu mu mel waaw fitt gu doy waar la woon te ne wa sadaadun sadaad nag moom itam dafa juboon ba nga xam ni du moy foo loo ko diir rek foo ko diir rek mu ja mu mu dal moo tax ñu tuddee ko jub sa daadul mooy lu jub mu ngoog safraawun moom itam mi ngi bàyyi ko dëkk bi naba keroog Uhud ci la demme xare xare Uhud ci la ci la ci la demme woon moom moom moom moom xala googu kon ñaata ñaata nga ma wax ma maa ne ni ah du waxoon naa la ñaar waaye topp ma mu ni euh, haaul xisi yi juróomi fet wala juróomi xala katuumun xala la wasadaadu xala la safraawu xala la muy ñett wa muy ñeent rawxaaw muy juróom kon juróom loolu la maam Alaaji Maalik wax ni moom laam waaw maam amul ñeneen ñu wax leen mu ni ah kañ déglu ma wax la la ñeneen ñu wax ñu ne ko bindal mu ni waqiila waawun fa addit sawta xan li taraa sidqal maqaali falam tartab walam tahimi <laughs> seet mag ñi billaahi ñooy jàmbaar jàmbaar dëgg dëgg dëgg ñooy jàmbaar wallahi ñooy jàmbaar mu ni waa qiila waxees na ni waawun juróom benn xala la amoon xam nga juróom la wax fee ni haawun waa qiila wax na ni waawun juróom benn la waaye bu nee juróom benn fa addit kon da ngay limaale sawtaxan beneen xala bu ñu wax sawtaxan saw taxan bant bu dëgër la boo xam ni ci xeer lay sax mbaa ci kekk bu màggee day dëgër këng këng këng caaxaan ko damm moo tax dañ koy rëpp door koy dëngal bu mu dëng waaye bu xasee ba làggi ci dëngaay boobu c'est fini caaxaan du ko damm mu ni kon na ca boole boobi le xala nee na li taraa ngir nga gis kon sidqal maqaali wax ju dëggu ji nga xamante ni moom la ñu ni ñi ni ñi ni juróom-benn la kon boo ci booleel saw taxan bii di nga gis sidqal maqaali kàddu gu dëkk kàddu gu dëggu gi walam tar tab bu boobaa doo ci def def la walam taximit doo gëlëm jaaraamu El Hadj Malick ñëw ko ci bal yi xam maa ngi doon wax xala yi mooy bant yi bant bu nekk fu mu jógee nu mu ko amee ak nu mu tudd léegi nag tumbaar yi mooy li ñuy takk ci buum gi taw bi mu dang ba caw mu dem ne loolu mooy bali yi mu ngoog <laughs> seet mu ni wa sàmmi nayla nabiyillaahi mutasilan wal waawu inda qurayshin gayra munsorimi waaw koñ nee na wa sàmmi na nga tudd nab la maa ngi doon nay la sa ngeen jégg ma nab la nabiyillaahi tumbaari fittuk yonente bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam muutasilan nga xam ni aji yegg lañu maanaam daawul moy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yéefar yi bu tawwee du moy yépp daan dal waaw waaw moo tax mu ne wal waawul waaw gi inda xuraysin ci waa xuraysi xayra munsarimin duñu ko bàyyi dañ naan mu tasilan tasilan am na ñoo ñum dañuy wax tasilan waaye bu dee ci waa xuraysi ñoom mu tasilan la ñuy jàng kon mu tasilan aji yegg la aji yegg la mu ngoog mu ne déglu lu ma wax la mbuus yi nga xamante ni ñoo doon def fett ya nee na wa jabaatun nee na wa jabaatun mbuus yi nga xam ni ñoo daan denc fett ya ndax fett yi daawuñu ko teg noonu rek dañ daan rabb mbuus dugal ko ci biir nee na sàmmi haa tudde ko alkaafuur nee kaafuur la tuddoon maam nee na ma waxaala ci leneen mintaqatun amoon na sentir mooy ak der waaw amoon na ak der xam naa kon Baay Faal yi seen der yi ko mboolem foofu ko jëlee ndax boo seen mi ngi der takk ko mel di waajal rek liggéey ak waajo song <laughs> macha allah waaw góor de noonu la fu ñu la fekk rek na nga nekk position militaire bu ne bëri nga taxaw moo tax Baay Faal baarakallah ñëpp di leen jël exemple di leen jël model waaw euh, bu dee liggéey ka ñu xanaa bàyyi faal nga bu dee da ngaa dégg ndigal ñun xanaa bàyyi faal nga bu dee ñu ne dangaa ngaa gëm service ñun xanaa bàyyi faal nga ah bu nit ñëpp toogee nga toog kenn naaj wa bu ñëpp dee noppalu nga ne ca liggéey ba bu nit ñu dee lekk nga xaar leen di leen jox ñu lekk ba suur bu dee sori na nga daw jëli bu dee naaju tàng nga taxaw ca naaj wa yonent bi sa alayhi wasallam nee na sayyidul qawmi qaadimahum sangu nit ñi mooy ki gën a nangu gàddu seeni coow ak gàddu seen seen seen kii nee na kooku mooy seen mooy seen mooy mooy seen sang ki mën a gàddu coow coowal ki gën a gàddu coonay nit ñi rek kooku mooy sang waaye koo xam ne fu ñu la fekk rek nga ne na ngi rek sa bopp rek nee na nee doo sang sang sang biir sallallahu alayhi wa sallam mooy gàddu coonay nit ñi sallallahu alayhi wa moo tax mu ni wa jabaatun mbuus yi nga xamante ci la sang bi daan def bal yi nee na sàmmihaa tudde ki alkaafuur nee na mintaqatun amoon a sentir mais na minal adimi bu der sentiru der maanaam sentir ak der ku amoon ah li xëyril xalqi ki gën ci mbindeef yi sangu-sang yi géeru géer yi mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi maam nee na ibrimuha wala ibziruha nu mu ko tuddati ibzimuha ibzimuha buukalu sentir ba ah maanaam tarfuha cat la cat la nee na saamun xaalis la lahaa xelaqun am na jaaro itam jaaro bi mel nan mu ni min fiddatin bu xaalis maam ne na addahaa limal limal seen tireeg der yi nga xam ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim ko yamale ko jiimun ni ñetti sentir la ñetti der wala déedéet mu ni euh, sentir gi amoon na ñetti jaaro yoo xamante ne yu xaalis la autant pour moi nee na ñetti ñetti jaaro xaalis yoo xamante ni benn bi ci digg bi ñaari ci ñaari cet yi nee na bilaa lu amul benn def defle te amul benn werante ñu ñëw nag ci xeec yi ginnaaw nag yooyu ma amoon ginnaaw fitt ya xale mu ni muswin wa musna kazaaka al aaxaraani lahu min a rimaahi wa fiiha xulfu kutbihimi <laughs> mu ni amoon na xeej bu naan muswin amoon na xeej bu ñu naan musna kazaaka ni ki al axaraani am na yeneen ñaar yoo xamante ne la woo na ko mina rimaaxi ci ay xeej waaye neen wax jiima la wax fiihaa nekk na ca xul fukkut bi mu ngi ci seen wuuteeg mbind wuute nañu lool luñ ci bind ah, waaw maam mun na inna razuqa wa zu timsaali maa futuqin atrasuhu rabb haza al abd sul juróomi <laughs> da yow Alaaji Malik baax waaye dëggal xaar bu ñëw foofu inna razuqa protéger jaasi yooyu ak xeej yooyu nee na wa zuttim saali amoon na ci boo xamante ni dafa amoon lu xaw a mel ni ab xërëm maanaam lu def dañ ca dese woon daal lu xaw a nuru nit mbaa nangam nangam mais yonent bi saa sallam da ko mujj sànni mbaa mu gas ko suul ndax moom lépp lu jëm ci xiram yoonam nekku ci mu ngoog mun nag atrasuhu xeej yi cet bopp cet yi yépp bu ci ne amoon na protection boo xamante nii mooy fekk loxo yi kii sànni ba du gaañu mbaalu dal ci miir si Sidi Hadj Malick xam ni way wi jeexul mu ni ko fa këpp wax bi dina rabbi yow sama borom xaasal abdu sa jaam bii de alaaji Malick suñu juróomi borom tooñ la de <laughs> illaa illaa tooñ la de ndax lii muy wax yépp di ko wax ngir xërëg bëgg rek gis nga ba léegi mi ngi ci bañ a boole boppam wala ci bañ a boole darajaam wala wala wala wala wala yépp mi ngi delloo boppam ci yàlla mi ngi tuubal boppam yàlla ñu ko yàlla yërëmal te gërëmal ñu ko te tas ci barkeem bi jaay seen amoon sallallahu alayhi wasallam mbokk yi ñu teg foofu suñu loxo teg suñu baaram incha allah ba ajuma jëlee ñu jëm ñu door a ñëw àggaleeg yéen incha allah Bablaye Dieye moo nekkoon ci technique bi ca kanam tuuti oustaz Alioune Sall ñëw ak yéen ci fafiru ilallaay ci tafsiru quran bi bu daanee leen jox sëñ Mbàkke Sylla mu ñëw yéen ci xamtu bu guddee nag 22h30 incha allah dina ànd ak alhaaji imam Mor Seck ñu ñëw yéen ci al minbar jërë ngeen jëf asalaamaaleykum maa ngi waa bala may asalaamaaleykum ma gërëm bu baax waa mat la li door sunu mat la li door su sunu sponsor yooyu ñu ngi leen di sant bu baax te leen gërëm di gërëm tam soxna Aïcha Kayre yal na yàlla may ko ndam te may ko jàmm bi jaay si wujud wa alami suud asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.